muy guddi fukk benn ak guddi fukk ñaareel mënoo ko ñàkk fanaan foofee ci minan bokk na ci warugar yi moom laa doon wax naa yaari guddi la yoo xam ne ñetteel ba mën naa ñàkk waaye yaar yooyu mënuñoo ñàkk mooy bisu fukkeel bii tey ne tey ji nu jànge muy bisu talaata fekkoon ne mooy fukkeelu fan boo defee tawaaful ifaada ba noppi da ngay dellu nag mi naan fanaane fa guddi gi nu jëm muy guddi fukk benn ak guddi ga ci sës muy guddi fukk ñaar yaari guddi yooyu nag boo fanaanee ba mu set ba tisbaar jot dañ cee sànni ay jamra yoo xam ne moom itam sànni jamra ya warugar la te it moom ñetti sànnikaay lay doon dafa am jamra ju jëkk am jamra ju ñaareel muy muy ji nekk ci digg ba ak jamra ju mujj tey day aajowoo nga tegale leen njëkk sànni jamra ba jëkk boo déggee jamra rek mooy fu ñuy sànni doj am daal am na daal ñetti sànnikaay xeer yoo xam ne bokkuñu te ñaari fan ñi nga xam ne mooy bisu fukk ak benn ak bisu fukk ak ñaar saa yu tisbaar jotee rek kon saye boo for yetti juróom-ñaar muy ñaar fukki xeer ak benn muy ñetti béréb bi sànnikaay nga seet sànnikaay ba nga xam ne moo njëkk nga njëkk koo sànnil juróom-ñaari xeeram jàll ca ba ca topp muy jamra ba ca digg ba sànnil ko juróom-ñaari xeeram jàll ca ba ca mujj ba ca mujj nag mooy xàq ba xàq ba ma nga sànni woon bis bi nga ñëwee ci bisu fukkeel bi ba taxan nga yewee ko yewee ko bu ndaw tey jii booy sànni yett yi moom moo ciy mujj léegi nag gannaaw boo sànnee jamra bu njëkk ba ak gannaaw boo sànnee jamra bu ñaareel ba dañoo soppoon nga taxaw fa ñaan fa ñaan gu yàgg-yàgg jamra ja mujj muy ju xàq ba moom boo ko sànnee du aajoo taxaw foofa di ñaan bul fàtte nag xeer wooy sànni nga waxaale allah akubar mu ne nag ba fal defal kazaaka naka noone taalisa naxari aj ñetteeli bisub loj ba wasita nga dolli raabixan ab ñeenteel inchita ndem soob na la day wane ne sànni jamra yi ñaari fan yi moom mënta ñàkk ñi ma ko misaale bu fekkoon tey ji talaata nuy jàng mooy bisu fukkeel bi nga dellu fanaani mi nan boo xëyee suba di àllarba faaw nga sànni yetti jamra yi ñu la wax bu tisbaar jotee bis ba ca toog muy alxames itam na nga sànni yetti jamra yooyu mënta ñàkk bu tisbaar jotee nga xam ne kon boo tàmbalee wàññi ci bisub talaata kon àllarba mooy nekk ñaareelu bisub tabaski bi ba bisub loj bi alxames mooy nekk bisub ñetteel ba ñaari fan yi nee naa la mënoo koo ñàkk sànni moom muy ñaari fan yi muy àllarba ak alxames ci ne ma misaale ajjuma ji nag moom la tudde ab ñeenteel ndax boo tàmbalee wàññee talaata ne talaata àllarba alxames ajjuma day nekk ab ñeenteel waaye ci dëgg-dëgg mooy ñetteel booy seet lim doon dëgg-dëgg ñetteel boobu wala nga ne ñeenteel ba ci ni mu ko tuddee nag lay wax ni moom bu la neexee xaar fanaan ba ajjuma jot muy bisub ñeenteel ba te ñetteel ba dëgg-dëgg nga sànni jamra ya door a wàññi ko bu la neexee itam nag boo yàkkamtee boo sànnee ñaari fan ñi niki ni ma misaale boo sànnee alxames ci gannaaw àllarba am nga ñaari fan la neex bu la neexee daal di gaaw gont génn mi nan del siwaat màkk mbaa feneen foo bëgg a dem bañ a xaar fanaan bisu ñetteel ba bañ a xaar sànni bisu ñetteel ba mu la alxuraan di wax naa fa man tahajjala fii yow may ni fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi li ma nit taqaa defe naa ni ma ko waxee daal leer na ñoo bëgg a wax ne bisu fukkeel bi daal moom boo defee tawaaful ifaada ba noppi ngay dem fanaani minan ñaari fan ci sës nag muy bisu fukk ak benn ak bisu fukk ak ñaar moom saa yu tisbaar jotee doo mën a ñàkk sànni yaari jamra yooyee niki ni ma misaale bu tey talaata doon fukkeel suba àllarba mooy fukk ak benn moog alxames mënoo leen a ñàkk sànni seeni jamra bu tisbaar jotee ajuma nag moom bu la neexee xaar ko bu la neexee bañ koo xaar loolu daal mooy gàttal bi bu fekkee mbir laa xaar ajuma nag boo sànnee alxames na nga daal di gaaw génn mi nan bala dafa jant ba soyee wala dafa jant fi soyee rek faaw nga war a fanaan ba yenduwaat sànni jamra yi ajuma ji sànni jamra yi nag moo mujj ci aj gi boo ko defee rek aj gi mat na moo tax mu ne watam ma temat maa la nga xam ne xusida jubloof na ko xanaa su boobaa sag aj mat na dellu fa sab dal mbaa fu la neex rek toog ba nga xam ne léegi ñibbi rek moo ci des nga dem nag wër kaaba gi wërub tàggoo waaw wërub tàggoo boobee bu dee ci yoonu Malik lu ñu sopp la moom itam wa manaxa tere na al ihraamu armal saydal barri rëbbu jéeri jéeri mooy suuf si suñu borom dafa wax ne bu ngeen armale aj mbaa xumra ba kera ngeen di yewiku bu leen rëbb maanaam bu leen laal wenn rab ci nga xam ne ñoo dëkk ci suuf si buñ ne rëbb gi nag moom doo ko sañ a dàq moom rab wa doo ko sañ a jam doo ko sañ a sànni doo woon ni ay nenam doo ko tiital ak rabu mën doon rek tam dëkk ci suuf si bu dee nag rabu dëkk ci ndox ma moom suñu borom nee na waxilla lakum saydul baxri wa taxaamuhu mataaxan lakum wali sayaara wa xurima aleykum saydul barri maa dumtum xuruma maanaam rëbu géej moom ni ki napp ci nag lu neex yépp manees na ko waaye rëbu jéeri daal moom lañ lay aaye boo xasee armal ba kere ngay yewi ko fii xatlihi nekk na ci ak rayam al jasaawu pay ga maanaam soo rayee aw rab nag ci rab yi nga xam ne ñoo dëkk ci suuf si te war a ko woon a def am na alamaan buñ lay teg alamaan boobu leeral nañ ko bu baax a baax ci kaset bi nga xam ne moom lañ jagleel aj ndax aj moom daa bari mbir laakal fa ëri waxunu lu mel ne ki janax wa xaq rabin ak jiit maxal xidaa ànd ak licin kalbin akub xaj xaqoorin bu dib gëddiwaakoon wa xayatin ak jaan maxal xuraa bi ànd ak baaxaañ isi tajooru ba danañu jeng dafa am juróom yoo xam ne moom yonente bi ne ay kàccoor lañu sayees na leen rey boo armalee itam du tee nga sañ leen rey moo xam ci xurum ji la moo xam ca xilli ja la mooy fu bokk te urum ji yooyu nag mooy janax daa bari yàq ak jiit ak jaan ak liccin ak xaj bi bawee ka màtte nee nañu sax dafa tudd rek xaj bi bawee ka màtte waaye ndegment rek mooy yëpp rab yu fàdd ci la bokk sañes na koo rey waaye yu bokk te yooyu nag moom tamuy ci rab yi àll yi moo xam wu miin la moo xam wu miinul la moo xam wu kenn moom la moo xam wu kenn moomul la boo xasee armal aj mbaaxam ra daal na nga ko moytu bu baax a baax wa mën a tere na moom armal almuhayita lépp luy aji wër bil xod ci cër ba walaw bi nas jin doonte ci ràbb la aw xaq ji wala ak fas ka xaatami ni ki ab jaaro xakkaw net li nañ ko ba tey boo xasee armal tey góor dañ lay aaye lépp loo xam ne nii dañ koo defar ba mën a wër ab cër moo xam day wër yaram yépp moo xam day wër benn cër ni ki bu dee ay kawas muy wër ab tànk wala bu dee ay gant muy wër ab loxo wala bu dee mbaxana mbaakaala muy wër bopp mu ci mën doon daal boo xasee armal ba kere nga yeewi ko moom bu fekkee ni góor la aaye nañ ko lépp luñ ñaw mbaa ñu ràbb ko mbaa ñu faste ko ba mën a wër ab cër ba ci ab jaaru sax bu dee ci yoonu maali ci la bokk ndax xam nga ne mën naa wër baaraam yépp da koy moytu lu mu ci def rek daaleem alamaan wasatra ak suturaal ga li wacc ñeel kanam nga awira si wala bopp ba bi maa ci dara loo xam ne yoo xaddu def na ko lim saatiran mi aju suturaal ba tey góor bu xasee armal day araam ci moom mu muur kanamam mbaa muur boppam ci dara loo xam ne dañ koo defar ba mën a muur bopp mbaa muur kanam mbaa boog loo xam ne sax defaruñ ko ngir muuree ko kanam mbaa bopp moom daal moom moom daal na bàyyi bopp ba muy bopp kese bàyyi kanam nga muy kanamu kese bu ko neexee nag mu sàng yaramam loo xam ne nii kenn ñëwu ko ni ki jekki-jekki jël ak làmbaay rek làmbaayoo ko mbaa jël am mbàjj mbaa sér rek laxaaroo ko loolu moom xamal ne mën na ko waaye nag lépp lu ñaw ba mën a wër mboolem yaram wi mbaa ñu ñaw ko mbaa ñu ràbb ko mbaa ñu faste ko ba mën a sàng ab cër ci cër yi nga xam ne loola moom araam na ci moom bu xasee armal ba keramu yeewi ko kanamam it na ko bàyyi bu mu ko muur benn yoon boppam it moom na ko bàyyi bu mu ko muur benn yoon kooku nag moom seetuñu ci la muure kanam nga mbaa bopp ba fekk muy luñ ko aada woo muure mbaa déedéet baax wuñ ko ko muuroo déedéet moom daal bu dee kanam ngay bopp moom kanam ngay bopp daal moom na leen bàyyi rek bañ caa muur dara dara dara ba keramu yeewi ko su ko defee nag bu yàlla dogalee mu sol lu ñu ñaw tañ aay woon ko ko bu fekkee xaw na caa jariñu dara lu mu néew néew ni ki fegal na ko tàngaay mbaa fegal na ko seddaay maanaam bu bu fekkee sol ko fegal na ko tàngaay mbaa sedd rek dana am alamaan bu fekkee da ko sol fi saa sunu ko fi saasa nag nga xam ne moom fegalu ko tàngaay fegalu ko sedd moom kenn du ko alamaan bu xësee sol nag loolu ñu ko aayee te waru ko woon a sol ba jariñu ca ci fekk tàngaay mbaa seddaay duñu seet ba xam moo ko coobareewu am da koo fàtte ku mu ci mën doon rek alamaan dana ko war la ñu wutee day mooy ka nga xam ne moo ko tey moom day am bàkkaar boole ci ka ko tey te coobarewu ko ka nga xam ne nag moom teyu ko coobarewu ko nag alamaan dana ko war waaye du ci am bàkkaar wa mën a tere na moom armal ak ti bëggat wa duhu nan akuk jiw wa darara xamlin ak lor ay teeñ wa ilxaa wa saqin ak dindi tilim-tilim duhrin ak dindi wex te mooy lewi shaharin ak dindi kawar te mooy watu ne boo xasee armal muy góor muy jigéen dañ lay aaye laal lat ko lañ lat ko lañ nag ñaar la lat ko lañ bu góor ak bu jigéen
bu jigéen mooy bi nga xam ne boo ko laalee mu taq la bu baax ba noppi itam xet ga day xeeñ am doole bu baax boobu nag mooy bi ñu araamal nga xam ne ku ko laal muy góor muy jigéen war a fay alamaan bi des nag mooy lat ko lañ bu góor mooy bi nga xam ne boo ko laalee du la taq bu baax du xeeñ bu baax mel ne ward ak yasmin kooku duñ ko sib rek yam ci waaye amul alamaan sib rek la
ba tey doo saña diwe sa yaram loo xam da koy nëttaxal da koy leeral da koy rafetal boo amee lor na ni ki say tànk di xar wala say loxo di xar ngir sedd bi moom lu mel ne karité nga xam ne amul xet gu neex daañu la may nga diwoo ko ba tey boo xasee armal na nga moytoo lor wenn teeñ mbaa dindi ab taq taq taq taq boo xam du sobee doo ko dindi ngay bàyyi rek noonu ba tey doo saña lewi we doo saña wat genn kawar wa yaftati dana jotoo li fi'li ba'dima ngir def lenn ci li nga xam ne dukkire tuddeef na ko minal muhiti tàmbalee ci muhiti li xunaa ba ci fii wa in xudira ak doonte gànt leef na ko da tàmbalee wa mën a xal muhita jee mu la wax ba fii nee na boo xasee armal ñu aaye la ko nga wëlbati ku def ko faaw war ngaa fay alamaan ba doonte sax da nga amee ngànt tey def nag bu fekkee ngànt tax nga def ko doo ci am bakkaar waaye lu tee alamaan moom nga def ko moo ko ko tey def li mu warta def ñoo yemoo rek ci alamaan bi waaye nag moom mi nga xam ne ngànt la du ci am bakkaar boole ca bu ko defee nag jotoo gi mu war a jotoo su defee dara ci yi ñu ko aaye woon ci armal gi am na ñetti xeet yoo xam ne mooy tànn bu ko ci neex rek mu def mën naa rendi ab gàtt ñoo wax gàtt nag waaye bu ko defee gëléem ba aw nag itam lay gën a baaxati far waaye bu rendi ab gàtt loolu doy na alamaan ca loola baa boog mu leel juróom-benn miskin miskin mu ne mu jox ko ab kilo ndax ñaari mudd la ñuy wax te ñaari mudd mën nga koo jàppee ab kilo baa boog mu woor ñetti fan lu mu def ci yooyu rek mu daal di baax wa mën a tere ne moom armal an nisa jigéen ña wa afsada te yàq na it aljimaahu booloo ga te yu baqaa def na desal al imtinaahu tere ga ilal ifaadati ba ifaada ka saydi ni ki rabbu suma baaqi ma topp aji des la nga xam ne xat mu ni xa tereefoon na ko yaxillu dana dagane bil jamrati jamra ja al ula ji jëkk fas ma xam na nga dégg bokk na ci ñi nga xam ne ku xas armal day araam ci moom mooy bu dee góor muy joteeg jigéen baa jigéen jotee góor te fekk mu armal say boo ñu takk nag ne kum ci mën doon fa mu armale ba keroog muy taxaw arafa moom bu fa jote googu amee rek faaw mu yàq aj ga ba tey gannaaw bu taxawee arafa guddi googee xam mooy guddi fukkeel ga su jote bi amee rek su jotee rek aj ga yàqu bu xëyee nag muy bisu fukk nag ñu seet li fekk defagut jamray xàq ba defagul tawaaful ifaada defagul kenn ci ñoom ñaar te génnagul bisu fukkeel boobu ba tey jote boobu amee rek yàq aj ga waaye nag bu fekkee ne xës na def kenn ci ñoom ñaar ni ki def na xàq ba ba noppi defagul ifaada daal di jote su boobaa aj ga du yàqu ba tey bu fekkoon ne bis boobu jàlloon na fekkul sax mu def kenn ci ñoom ñaar waaye bisu fukkeel bi moom jàll na ba noppi ba tey gannaaw ba bu jotee itam du tax aj ga yàqu bis boobu nga xam ne mooy bëccëgu bisu fukkeel bi daal moom bu xasee jàll moom doonte defagutoon kenn ci yaar yi muy jamre xaqaba ak tawaaful ifaada it te teewu ko def jotee googu jote góor a jigéen du tax moom aj ga yàqu waaye nag bis bi nga xam ne mooy bisu fukkeel bi mu bëccëg boobee moom bu fekkee defagul kenn ci yooyu jaar muy jamre xaqaba ak ifaada ba noppi wëlbati ko nag jote googu am moom dana yàq aj ga saa yu nee nag yàquwut nga xam ne kon addi yu moo koy war niki laalante ci yaram rek noonu te bañ a àgg ci jote ci sawukaay moom it du yàq aj ga waaye addi yi moo ci addi yi moo ci war te laa leeral nag ñaari yewiku yi nga xam ne ñoo am yewiku mooy sañ lañ la aaye woon yewiku bu ndaw bi moom mooy boo sànni jamre xàq ba bisu fukkeel bi boo xëy see minan ba sànni jamre xàq ba lépp li la aaye woon ngir armal ga rek mën nga ko ba mu des joti góor jigéen jotek góor jigéen ak rëbbu mooy rey aw rab bu bokk ci maanaam laal aw arab bu bokk ci yu dëkk ci suuf si ba tey lal ko lañ ñu sib ko ba tey ñett yooyu ba tey moom du daga nagoon boo sànnee jamray xàq ba wala moo tax ñu tuddee sànni jamray xàq ba yeewi ko bu ndaw boo jàllee nag ba def tawaaful ifaada te fekk yow doxal nga safa ak marwa waaw kay foofu ngay amee yeewi ko bu mag mooy léegi aayatuñ la jote góor jigéen aayatuñ la rëbb ci boo génnee xorom ji te xorom ji moom sañu sufa rëbb lat ko lañ ba tey kenn sigatu ko kon leeral nañu ñaari yeewiku yi nga xam ne bee mooy bu ndaw bee mooy bu mag wa jaasa dagan na al istidlaalu kerloo bil murtafi ci lépp luy aji yëkkati ko maanaam bu ñu la nee boo xasee armal doo sañ a muur sa bopp ak sa kanam xamal ne mën ngaa fekk nag lépp lu taxaw am ker nga toog ci ker ga mu keral la niki dugg ci néeg wala ab ab tànt wala garab wala ker gu mbiir mooy lépp lu sax daal moom nga xam ne dafa taxaw rek doo ko yoraale booy dem mën nga koo fekk fa mu nekk nga toog kerloo keram loo xam ne nag moom nekkul lu sax yaa ko yor booy dem nag loolu loolu nanguwut mu keral la moo tax mu naan laafil maxaamili waxuñu ci jagaajal ya wa suqdufin ak suqduf fa yi na nga wattu buñu wolof la buñu masaawar gëléem da am lu ñuy tiimale gëléem nga ak kacawar mu di ko fegal aw naaj ñu koy tuddee jagaajal suqduf am nañu ne xeetu jagaajal la bu ndaw wala bu mag waaye moom itam xeetu jagaajal la dañoo ne daal lu mel ne parasol nga xam ne yaa ko yor booy dem wala lu mel ne jagaajal nga xam ne moom dañ koy muure ki nga xam ne moo war ndax naaj bañ ko lakk yu mel noonu moom bu xasee armal ba keramu yewiku du sañ a kerloo yu demee noonu lam sañ a kerloo mooy loo xam ne rek dafa sax ci benn béréb ni ki ab néeg wala tabax wala xayma wala garab wala miir ak yu demee noonu waaye saa yu kerloo lu bokkut ak loolu rek daal di war a fay alamaan wa sunnatul xumrati sunna xumra faf xalxaa na nga ko def kama xajji niki aj wa ahriman na nga ko armale fit tanxiim yi ci tanxiim nat ban ci sopp da ko def nag fit tanxiim yi waaye mel na ne am na yax yu def bit tanxiim yi daa wax ni xumra sunna la su dëgër a dëgër umra ba nga njëkk a def nag mooy am darajay sunna waaye boo xasee umra benn yoon rek umra boo defati lu ñu sopp lay doon umra nag moom moo aj màkka ñoo bokk ay ponk aj da koo gën a guddule rek ndax moom da ngay armal yéenee xumra wër kaaba dox safa ak marwa nga xam ne ñetti ponk yooyu ñi ko aj amee noonu la ko xumra amee waaye nag bu dee xumra moom boo xasee yéene dem wër kaaba dox safa ak marwa rek nga daal di watu wala nga jemp bu dee góor bu dee jigéen bu jemp umra ga daal day jeex foofu dong la umra yam moom na sopp nañ nga armale ko ca tanxiim daat dafa tudd béréb ba nga xam ne taamu nañ nga armale foofa rek moo tax mboole sax natt ban ci sopp wax li xan na nga watu isra sa njëkk ci gannaaw sax dox safa ak marwa wa qasiran te nga jemp daa bëgg a wax bu la neexee jemp taxil la kon nga yewi ko min xaa ci umra ga daa bëgg a wax ne umra moom boo xasee yéene te mooy armal ga dem wër kaaba dox safa ak marwa rek la cay topp mooy watu mbaa jemp bu dee góor bu dee jigéen nag mu jemp rek yem ci bañ a watu umra ga dal nay jeex waaye moom lépp la nga jàngoon ci aj rek ca nañuy armaleeg lañuy sopp ci armal ga ak nañuy wëreeg nañuy doxee safa ak marwa yépp yépp ñoo ko bokkule wa kasira na nga baril ak tawaafu wër ga maa dum te li fekk sax nga fi makkate ci makka waraxate nga sàmm alxurmata orma ja di jaani bil bayti ñeel wàllu kaaba ga wasit te nga dolli fit xidmati ci liggéeyal yàlla wala sim te nga taqoo asaf fa sàppe sa daa wax li fekk yaa ngi màkk nag moom ndegam yow ab doxandéem nga fa saye boo bari la wër kaaba gi ndax yow boo xasee ñibbi doo amati kaaba goo wër kon del baril wër kaaba ga def ko naafila te itam nag li fekk yaa ngi màkk da ngay sàmm bu baax a baax ormay kaaba gi mooy di moytu dara lu yàlla bëggut ci xeeti moy yi ndax xam nga mooy moom baaxul fenn waaye béréb bu tedd booy boo ko fa defee day gën a rëy te gën a ñàng kon nga sàmm ormay béréb bu sell boobee farlu ci lépp lu yàlla bëgg mooy lëggéeyal yàlla ci lépp lu yàlla gërëm te taxoo sàppe sa mooy fexe bay jullee julli mbooloo ca kaaba ga ndax tuyaaba ju bari ji ci nekk fa in xasamte ndeem dogu nga xalal xuroo ji ci génn tuf wëral kama xalimte na nga xamee woon nee na boo toogee nag léegi ba nga xam ñibbi rek moo des sopp nañ nga dem wër kaaba ga wërub tàggoo jëmmi wër boobu na nga ko daan defee rek melaw amatu soppiku bu wër ba àggee itam nga dem julli ñaari rakka ca gannaaw maqaamu ibrahim waaye nag bul fàtte ne lagg bi ñu daan wax moom ci ñett yoonu njëkk ya ci tawaaful xudóom rek lay amee muy wër ba ngay njëkk def boo ñëwee bay nuyu kaaba gi rek boobu rek moo am lagg waaye tawaaful ifaada amul lagg ndegam defan nga ko ca tawaaful xudóom wërub tàggoo bi itam amul lagg kon nag ni waxee nii mooy yow ñëw nga màkka def nga fa say jaamu ci kaaba ga ba noppi daa bëgg nga dem nag siyaare ji yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu dee nun nag moom ñi bàyyi ko fii Sénégal dañuy njëkk a jaar foofa ca Madina siyaare yonante bi jóge fa nag wut si màkka nga xam ne bu ñu jógee màkka dañu daal ñibbi si wasir doxal li xabril Moustapha jëm ci xabru ko ñu tànn bi adabin ànd ak teggiin wani yétin ak yéene tujab kon def na la wuyu li kulli matalabin ñeel bépp càkkuteef sallim na nga nuyu xale yi ci moom su ma sidd topp nga dolli li siddiq yi ñeel abubakar ni siddiq su ma ilaa xomara topp jëm ci omar ngir te yàlla na nga am at tawfiixa dëppaleeg yàlla dafa wax ne dañoo bëgg nag boo noppee ci ajgeeg xumra gi lu aju ci kaaba ga nga dem nag siyaare ji yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ko defee boo jubee madina ñu bëgg nga wàcc sangu sol sa yére yu rafet xeet xeeñoo xeet gu neex door a jàll soo àggee itam na nga njëkk a julli ca jàkka ja ñaari rakka nuyoo ko yàlla ndax yàlla moo jiitu àqam moo jiitu jàll nag siyaare yonante bi boo siyaare yonante bi Abubakar mu nga sës ak moom ñu denc ko foofa nga nuyu ko siyaare ko boo noppee ci Abubakar jàll ci Omar Omar mooy itam foofu lañ ko denc waalam na nga xam nag bi ànd dal maqaama ci naka bile taxawaay yustajaabu def nu wuyu fii ci moom adduha ñaan falaa tamal la kon bul yokkat mintilaa bin ci càkkuteef xamal nag ne béréb boobee nga nekk muy fa yonante ba gaayam yu baax yooyee béréb bu nangu ñaan la kon na nga xër bu baax a baax ci baril fa ñaan kem sa gàttan wasal na nga ñaan shafaaxatan am ramu waxat man akuk mujj xasan guy aj rafet waxajjil te nga gaawe al awbata dellu ga idnil ta ba nga amee almunaami bét ya nee na boo xasee bay ñaan nag ñaanal lépp lépp loo bëgg waaye na nga ci jiital yonante bi ràmbu la bu ëllëgee nga ñaanaale itam mujj gu rafet rafet ndax mujj gu rafet rek moo am solo te it nag dañoo bëgg rek boo noppee ci siyaare beeg ñaan yi nga gaaw daal di wàññiku bala nga faa yàgg di yàpp béréb ba xam nga day def béréb bu tedd lu mu tedd tedd boo fay door a ñëw da nga koy wekk fonk ko waaye boo fa yàggee tuuti rek daal di koy bëgg a yàpp yàlla mooy lu yàlla mayul nga def ko amuk farlu rek boo yàggee fi béréb bu lum sell sell danga koy daal di yàpp daal koy sàggane boo watul def fa lu aay loo xam ne danga fa lu wut si sax ci aw yiw danga koy far ñàkk moo tax mu bëgg rek boo ñëwee ba siyaare ba noppi rek sa aajo faju nga daal di gaaw dellu bala nga faa yàqule far wa doxul na nga tàbbi sa kër duxan ci waxtu yor yor wasab te nga àndaaleeg hadiyata suróor yi addiyee mbégte lil aqaar yi jëm ci jege ñaale ya ba mën ak képp koo xam ne ya dóor dana wëndeelu jóge ci yow daa bëgg nee na boo ñibbi sa kër nga ñëw waxtu yor yor ndax sañoñ mën laa waajal teeru la waaye boo ñëwee waxtu guddi li ci ëpp guddi moom mën naa am nga fekk ñu tëdd ak yu demee noonu mën naa am itam nga ñëw ci waxtu guddi gis lu la xaw a bett loo xam na ngay defee ne lii kat boo demee baa demee ba tey ñu ngi koy def sama gannaaw daal di ñaaw njort ci sa waa kër yu demee noonu daal moo tax ñëw yor yor moom moo gën ñëw guddi lu may na nga xam ne xamoon nañu waxtu ngay ñëw bu ñu xasee xam waxtu ngay ñëw moom baax na bu dee guddi itam du wàññi dara waaye bu fekkee xamuñu waxtu ngay ñëw daal moom def ko bëccëg mbaa yor yor daal boo ñëw bëgg nañ nga indaale sërite boo xam ne nga koy jox jege ñaale yi ak képp ku lay siyaare si ak képp koo bëgg a jox rek addiya loolu nag lu mel ne tàndarma jaag ndoxum sam-sam maag yi demee noonu mel ne ne mu ëpp solo daa mel ne mu ëpp solo ci wàllu sërite bu bàyyi ko foofa ndax lu mel ne ndoxum sam-sam ma nga xam ne foofa la cosaanoo ak tàndarma ji nga xam ne foofa la saxe ne sax xëy na moom lépp lu ñu fa indi rek ba jaw yi màkka jaag madina laal ko rek dal nay am barke jëlaale ci barke béréb yu sell yooyee waaye mel neen mel neen daal yi nga xam ñoo fa cosaanoo ñoo ëpp solo ci boo bëggee indi addiye lu ñuy barkeeloo kitaabu mabaadit tasawufi lii mooy téereb tàmbalikaay yi tasawuf wa hawaadit taarufi ak way gindee yi xam nga yàlla xam nga ne daa waxoon ne téere bi da ci bëgg a jàngale tawxiid te topp ci yoonu al imaamul ashari jàngale ci fiq te topp ci yoonu al imaam malik jàngale ci tasawuf nag te topp ci yoonu al junaydu mu ne kon boog lii mooy téereb tasawuf tasawuf moom neen dafa yaatu waaye daa lay waxal yi nga xam ne rek ñoom ñi xam ne tasawuf daal di ko jàngale moom la ñu njëkk faral di tudd ci bindee tudd tasawuf tasawuf nag bul fàtte ne mooy al ihsaan rafetal maanaam lépp looy def yàlla kese tax te nga sàmm ca teggin ya nga xam ne mooy tax yàlla gërëm la boole la ci ñoñam nga xam ne boo ko dee seetlu jëf ju nekk day am zahir am baatin zahir si mooy li nga xam ne moom la fiq di àtte ni ki bu dee ci julli fiq di àtte laab ga ak ndox mañ laabe ak rakkayaak njàng maa yu demee noonu tasawuf nag moom mooy àtte baatin ba maanaam kay julli ndax yàllaa ko tax di julli du rek mbooloo moom gis moo ko tax di julli ak it bu dee julli ndax mi ngi teewlu màggaayu yàlla am xelam daa nekk rek ci marché baag kum doon jëflanteel ak ak lu mu war a defe bu noppee yu mel noonu muy wàllu baatin ba moom la tasawuf di sàmm nga xam ne tey boo doon joxe sa yëf ci yoonu yàlla dañuy seet ba xam bu dee ci fiq ndax li ngay joxe sañ nga koy joxem déet du loo sàcc mbaa loo daane ci jaama bàyyi mel noonu bu dee ci wàllu tasawuf nag moom day seet ba xam ndax ngir yàlla rek moo la tax di joxe wala da nga caa bëgg aw tagg mbaa da nga ragal ne boo joxewut ñu xas la yu demee noonu nga xam ne kon daal boo ko dee seet leen lu ne am na zahir am na baatin zahir sa moom la fiq di àtte baatin ba moom la tasawuf di àtte kon nag léegi mbir mu nekk muy xeetu jëf ju nekk nga sàmmante jàkk zahir sa ba mu dëppoonteeg ni ko shariha rëdde loolu mooy sàmmonteeg shariha ba tey ci wàllu baatin bi nga sàmm ca def ngir yàlla kese ak teggin yi nga xam ne moom lañ ca taamu loolu mooy wàllu tasawuf ba boole yaar yépp nag mooy tax yàlla nangul la li ëpp solo nag ci wàllu tasawuf moom mooy tuub tuub moo ca jiitu ndax boo bëggee aw ci yoonu yàlla wi da ngay seet mbooleem la nga weesu rek te yàlla gërëmu ko woon nga tuub ko ba génn ca ba set ca wecc loolu moo jiitu moo tax mën naa wataw batun tuub min kulli zambin ci bépp bakkaar yu ci taram boobu def na ko fàggu te ji bu dana war fawran ci li gaaw mutalaxan ak lu mën di doon te waxiya moom tuub ànd na damu may réccu bi chartil iqlaahi sartu buddiku ga buddiku mooy bàyyi bàkkaar ba wa nafyil israari ak dàq nuur ga wal yatalaafa te it na dabaatal mumkinan lépp luy aji jàppandi dabaatal das tixfaarin mbir mi boroomuk sàkkoo jégglu li njëkk ci yoon tasawuf daal mooy tuub tuub gu sell ci lépp loo weesu lu yàlla gërëmut te gaawee ko fi saa sa bañ koy yeexee bu fekkee la ngay tuub sa diggante sa borom dong la am na ñetti sart mooy nga rëccu aw ga nga ci awoon tamuy du naqar yàlla ñaareel ba mooy nga dogu ci bañ caa dellooti mukk mukk mukk li des li des ci sa dund li des ci sa dund ñetteel ba mooy nga bàyyi ko fa saasay saasa bu fekkee yaa nga ca woon ndax bu fekkee yaa nga ca woon ba noppi naa maa ngi tuub boo bàyyiwut day mel ne kon kuy reetaan yàlla bu fekkee nag àq doomu aadama da caa aju nag boole ca faaw nga boole ca faaw kon nga boole ca jégalu doomi aadama joojee bu dee alal nga fexe ba delloo ko ko te jégalu ko bu dee ab deram boo yàqoon te nga xam ne boo ko waxee jégalu ko mu jégalu ko te du ko naqaree noonu ba di ko yàqal addunaam loolu lépp kon na nga ko jégalu bu baax a baax bu fekkee ne nag alali jaamur la te kooka génn adduna. ba tey boo ko joxee ña koy doon rek mu baax bu fekkee ña ko war doon nekk ñu fa itam boo ko saraxee rek mu baax yàqu der bi nag moom moo xaw day waar moom koo ko nekk fa nga jégalu ko ko rek moo cay tane ndax nekkul lu ñu doon bu fekkee ku nga yàqan ab deram nekku fa da ngay bari lu baax ak di tuub dellu ci sa borom ndax sa borom jekki-jekki fayal la ak joojee mbaa boog lu baax lu bari la ngay def boo ëllëgee boo taseeg waaja mën ko koo fay ca alaxira ba tey itam boo dee tuub te am loo sàggane woon ci sa diine te te ñu mën koo dabaatal mel na julli yu la rawoon mbaa xeeti asaka yu la rawoon yooyu yëpp da ngay taxaw temm ci dabaatal ko bu dee ay julli nga taxaw temm ci fay ko bu dee asaka yoo joxewutoon nga taxaw temm ci joxewu ko ak mboole mi nga xam ne rek luñ mën a dabaatal la wa xaasilu taqwa dëgg dëgg ragal yàlla ijtinaabun mooy teet ak tere wam ci saalun ak topp ndigal fii zahirin ci lu feeñ wa baatin ak ci lu nëbbu bisaa ci lii kat tunaalu la dee fi ko amee dëgg-dëgg ragal yàlla moom mooy lépp lépp lépp te kat nee na boo ko dee seet ragal yàlla yow mën naa xamle mooy moytu lépp lu yàlla aaye bañ koo jege ak topp lépp lu yàlla digle kem sa kàttan lu yàlla aaye moom lépp nga war a moytu lam digle nag moom boo ci defee la nga mën rek ba mu xam ne def nga la nga mën rek sa jaan wàcc kon nag topp la ñu digle bàyyi la ñu tere yooyu yaar boo ko boolee ci dëgg-dëgg mooy ragal yàlla waaye da nga koy def nag ci biir ak ci bitti. ngay moytu lépp lu yàlla aaye ci biir ak ci biti def lépp lu yàlla digle mooy topp ko ci biir ak biti moo tax mu naa fajaat te dikk na al aqsaamu xaaja àqan ci dëgg-dëgg arbaxata mbir mu ñuy ñeent wahiya te ñoom subulul man fa